le choc des techniques seen mbokk yi ñu ànd ceeg Leewtoo production muy dox ci diggante Tidiane Faye le professeur de l'arène ak Ndandi Fall le technicien de Grand Yoff. Euh, le professeur nag journaliste ñoo ko tuddee. ah combat amateur la nag. combat ñaari mbërëntaan la làmb bërikat la. bii mooy sama 32e combat. man kenn teggi lu ma yor damaa xare. ku ma lebal boot dama koy fay. làmb léegi sama bakkan gi laa ci teg. Ndandi maa ngi yow droit lañ. boo bëggee combat bi day gaaw. Ah. xanaa nga bañ a bëgg. dañ koy jël lu ñu moom force. dama ne Tidiane na ma xaar maa ngi def le 6 janvier 2024 fii ci arène nationale Ndandi Fall ne daañu bëree daañu xeex Tidiane Faye ne su bëggee sax ñu bëre ba naaw ci kaw air bi Ndandi Fall di jógee Grand Yoff Zarko andi ko Tidiane Faye di jógee Lansar Siteu ànd ak tarkindaa yi laa ilaaha illallaah muy weesu na garaaw ñu ngi jëm le 16 décembre fële ca arène nationale diggante Sambokol ak X9 Go et Salam tëgg combat boobule di combat ba nga xamante ne bii ñaari espoir lan ku ci nekk di jógee ci goxu làmb ñu seet si ki nga xamante ne bii mooy X9 mu def open press fas yéene waxtaan ak ay mbokkam fas yéene waxtaan ak presse bi mbër ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah bi si daal ginnaaw ba ñu sant yàlla di di sant suñu ñaari waajur di sant ñuy jàppale di sant sama waa maa ngi sant waa rajo bi maa leen sant bu baax di sant sama waa koñ waa naa di leen nuyu comprendre nañ di nay di nuyu waa géej waa gépp di nuyu sama per sama nijaay sama mak sama lépp muy grand liiru Diane amu fayam ndax moom luñ dara ku waa booru géej waay ku ci la dara dafay teew comprendre nga di la dooleel daal ñu ne maanaam moom amuñu fayam ku waa voilà yàlla mi am fay na ko yàlla fayal ku waa waaw loolu la ñu am lu ñuy wax waaw allah. nga jëm nga jëm le 16 yow ak nga jëm nga jëm le 16 janvier yow ak Sa Bokhal waajtaayu combat bi. waaw le 16 janvier di ñaan yàlla. le 16 décembre di ñaan yàlla rek tal ak fekkee ba jour ba comprendre nga comme li ma doon wax si signature ba rek loolu laay waxaat fii comprendre nga ndax moom mbër la comme mbëri rek gars yi koy bàyyi xel ay kii ci Eumeu la nekk wala ci nangam wala ka ñun xalaatuñ loolu ñun Mame Balla lañ gëm ak waa Ikir Walfadjir ak waa Guédiawaye gi topp suñ ginnaaw moom lañ gëm quoi ñun gëmuñu yooyu noonu ay mbër gi nii la mel ak melu noonu ñu ngi ñaan yàlla ndam ci kawam quoi le 16 allah. le 16 lan lañ mën a xaar combat bi mën naa am xeex mën naa am bëre parce que moom nee na day xeex si. déggoo lu mu la lu mu jar dañ koy def fere nañ fépp fott nañ fépp lu mu préparé ñu préparé nañ ko lu ko raw waa géej waay ndam li dañ koo soxla dañ maa yónni yaa xam te ma. mënuma doo puus doo paas. moom day daw rek ñun amuñu rek. waaw maa ngi bëggee waa marché Xelcom bu baax waa marché bu bees marché Ndiarème waa Asegna Gétu Fan. ci combat bi lañ nekk mais man ko bi instant bi man dem dem jëli rek moo ma dese quoi instant bi dem jëli kese moo ñu dese. pare nañ fépp loolu yomb na de. pare nañ fépp X9 ngay waxal de lu mu jar ñu jënd ko tous X9 kese. sa boxal ma waxtaan ak moom mu ne ma X9 rond point xaar mbay ma jaagal la may xaar lépp luy lépp luy neex ci combat bi maa koy def. may xeex may bëre moom daal wax rek la am ci combat bi ak tuus ñëw daanu. moom du def dara du def dara bu jour ba nee naa ko moom mu taxaw rek man maa koy fekk maa koy duma koy daan maay fecc maay neexal lu koy xew maa koy def lu xew foofu man maa koy def te yàggatul su ëppalee tuuti dama koy bulli doo dégg bullil ma ko. dama koy bulli. dama koy bulli nga naan lan. bulli mooy lan. après ngay comprendre. xam nga dama koy bulli. lan mooy lan mooy bulli. non après comprendre su ma ko bullee ba pare nga xam ne def si kot rek maa ngi sant buuba def si kot nag waaw jàpp na si combat bu baax a baax di sant Fallou euh, Fallou oto quoi moom day jàpp si bagage bu baax a baax borom aseg naa maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax quoi ndax jàpp na si combat comprendre nga di sant ñoom Omar Fall muuma comprendre nga ñoom Mambala igiri géej waaye gépp maa leen di sant maa ngi sant Zé grand góor xam nga maa ngi sant Fallou Ndiaye oto maa ngi gërëm ñëpp daal waaw waaw kii moom suñu papa la suñu lépp la Lirou Diane waaw mooy monument maa moom moom xam na lépp maay ngi gërëm la Diop bu baax mu ñëw jàpp si combat bi ndax soon bi sonn nañ ci ko waaw Lirou Lirou Lirou bala ñoo continuer waaw waaw maa ngi di nuyu di sant gis nañ taxawaay bi rafet na trop gis nga ñun amuñu lu dul Guédiawaye kii champion la naan la kii gars yi xamee nañ ko champion yi nekk ci kaw xamee nañ ko ci mbapat yi kii dafay compétir du xaarul làmbu arène dong dong comprendre nga moom tey su amul combat day dem ci àll bi di compétir kii champion ku ko xamul li dégg nga ko benn affaire laay wax ñu jaaw jàppale ko ñun amuñu lu dul géejawaay Lat Diop mention spéciale ndax gis nañ ni muy jàppale xale yi comprendre nga xamewul mbër bu ndax xamewul mbër mu ndaw te ñun amuñu leen lu dul géejawaay kii xale yi ñun ñoo leen mën a dooleel ñun ñoo leen mën a jàppale ndax fi ñu see fi seen mat yi àgg ñoom ñu àgg fa ndax ku ci nekk bisam nga am ku ci nekk bisam nga am man bala maa gën a am lu ma neex ñu ne ma suñu la gisee sa dafa am leen lu ñuy def leen lu may lu ñuy def ci ñoom kon la voilà moo tax lu ma jàpp ma dama koy bàyyi ñëw teewal leen champion la ndaanaan la su baa la ñuy doog xam ne champion la amul lu muy ragal amu lu muy tiit su bis baa la ñuy xam kii mooy kan champion la et puis doomu Guédiawaye la doomu Raadawee la doomu Raadawee la nekkul Radawé Radawé ragal dëkku fa Radawé Radawé ragal dëkku fa. wuyul wuyul am wuyul am. waaw waaw. waaw waaw. waaw loolu la yaakaar xalaatam la wax. waaw. waaw loolu la yaakaar xalaatam la wax incha allah rabi ñoom suñu yéexee duñu am place bu nu toog laaj Diop dañ ko wax dina jënd billet yëpp dina ci jàpp incha allah rabi ndax ñun amuñu lu géejeway géejeway la ñuy tiituroo ñoom xaj na stade daf leen a jege ñun tamit dañuy dox dem stade te xale yii ma gis si open de presse bi jël nañ loo xamee ni nii motivé noonu benn xam ne nii bëgg nañ sooba yàlla su bis baa su bis baa kenn du leen jiitu si xale ra at naa Asegna ra raadawee waa ra waa Asegna ak écri fajir gépp waa Géejawaay gépp nan génn ñu jàppale xale bi samedi yàlla may ko ndam ñu ñëw Géejawaay feete ko ndax ñun amuñu lu géej ay raadawee ay raadawee fenn du waa raadawee champion. jaga jaga soo amee jëm ci bis bu rëy mu nekk combat boo xamante ni combat bu baax ci sa carrière la. ku ne xam na ni saa bokkal duggoon na biir géej waaye bëre ki nga xamante ni mooy càndum 2 bi ma ko e dafa ni ma njaga càndum 2 dañ ma ko jox ma duma ko daan ko jour boobu waa géej waaye kenn reerut nda ngay jël si revanche wala lan ngay nar a moom ak moom ñun lépp dañuy jël si dañuy jël si revanche te fii fii lay teerale fii lay bàyyi géej waaye fii day wàññeeku du dubal day kóot day wa fii lay wàññeekoo nee na da lay boole ci lim bi de daa xamul si neuf moo bu jour ba dina xam kan mooy X9 non ñun gëmuñu kooku ñun Mambaale rek lañ gëm bilaay Mambaale lañ gëm waa gëmuñu woon. waa Idi Idi Idi Idi ñëwal waaw. mu ne mu ne da nga faa duggoon daan booy moroon nga war faa duggaat duggin bi bii yoon nan la war a demee waaw man aw ma arrêt damay daw rek su ma duggee damay kon na rek su ma taxaw rek damay daw rek aw ma arrêt waaw bilaay wallaay taala aw ma arrêt damay daw rek toujours ba damay ñëw kon ne waat rek keneen ñëwaat ma tegal dama bëgg moom buy ñëw saa bokkul buy ñëw mu indi ñaari ngeem su indi na indi ñaari ngeem bu ma daane mu jox Eumeu Sène ngeem ñaari ngeem laa mu daane su waaw noonu la demee waaw amaare damay daw rek ñaari ngeem ñaari ngeem na ko indaale benn Eumeu bu ma daane mu jox benn Eumeu Sène ma bulli leen ñoom ñaar ñëpp bulli rek bulli rek amul daara day bulli rek ñaari kàddu bala moo woote waaw sant yàlla nga xam ne le 16 suñu le 16 ñu ngi woo gars yi ñu dem ci fair play ku ñu xam-xam ne ci fair play lañ dëkk quoi kii champion la gars yi ñoo ko ràññeewul yéen presse bi nii am na seen gars yu ko xam mais kii champion la kuy takk benn benn benn ngemb ci guddi bëri ay 64 personnes wala plus bu jeexee nga demaat feneen benn takkusaan du la jaaxal saa bokkal jaaxaluñu bëj laay wala du xeex du bëre kii moo ëppale lépp di ñaan yàlla juste ba yàlla ànd moom may ko ndam lu rëy ci barke xale bu yaru la billahi wallahi wa taala dagul mbir de kii lu wax si man lu raw moo nekk si moom xëy daa baax rek ñu jar ko moo loolu xam nga benn saa ni da dafa joxe cër rek moo tax muy wax loolu mais kii champion la école li wal fajir ay champion rek a fa nekk mbëri dañoo àndandoo ñu ñëpp bëgg combat bi ci kaw ba suuf koo xool ku ne benn moo la gën a bëgg làmb ji yàlla suturaal yàlla may ko ndam may école bi ñu ci kanam incha rabbi le 16 suñu ñu préparer le 16 comprendre di woo sama waa koñ comprendre nga waa Asegna aw ma seen fay di woo sama mbokk lawbe yi di woo waa ra kii Arlem comprendre nga woo ci bis bi waa Massa Ndiarème bàyyuma kenn waa Baylaay waa tournal Sëñ Assane chauffeur kalandoo yi comprendre nga Cheikh maa ngi koy baax di ko xaalis bëri la ma jox ñoom bure aw ma seen fay gars yi dañ maa bëgg te yàlla tax te ma leen dara di ñaan yàlla yàlla suturaal ñun comprendre nga luñ bëgg si ñun suñ borom waa defal ñu ko ba ñoom ñu gis ko quoi maa ngi sant mbay mbub bu baax a baax ma fayam ko waa képp kuy bëggee X9 maa lay sant bu baax sant sama doom nday ala comprendre nga ñoom Birane waaw ñoom Ama Sène comprendre ñoom Ouz aw ma seen fay daal ñoom ñëpp ko waa nañ ma may rek le 16 man ndam rek laa leen desel essence bi comprendre nga di sant ñëpp quoi aw ma seen fay Omar Fall muuma Omar aw ma fayam ndax su ma amee combat dama si sonn ay ñoom baytin Assane Ron aw ma fayam bu ma demee bay tax sër bay ñëw fii di wax ay presse ndax yàlla ak Assane Ron Assane Ron koy sant bu baax comprendre nga sama booy ñu gaañu xoma ñoom baytin xoma sama ay ñoom bay si de Papa booy comprendre ay ñoom Pape yooyu yëpp comprendre di leen ñaanal yàlla yàlla yërëm leen baax Kandji waaw Kandji moom borom baax la quoi waaw di ko woo mu jàpp si Ousseynou Assane waa ñoom jàpp nañ si bu baax a baax maa ngi sam sama waa Asile nag ñoom Ousseynou Touré comprendre nga ñoom Jabel ñoom Yirim comprendre nga dawal ko Dóoro yëpp waaw maa ngi sant le choc des techniques seen mbokk yi ñu ànd ceeg Leewtoo production muy dox ci diggante Tidiane Faye le professeur de l'arène ak Ndandi Fall le technicien de Grand Yoff. le professeur nag journaliste ñoo ko tuddee. ah combat amateur la nag. combat ñaari mbërëntaan la làmb bërikat la. bii mooy sama trente deuxième combat. man kenn teggi lu ma yoon. damaa xare ku ma lebal boor dama koy fay. làmb léegi sama bakkan gi laa ci teg. Ndandi maa ngi yow droit lañ. boo bëggee combat bi day gaaw. Ah. xanaa na ma xaar maa ngi def le 6 janvier 2024 fii ci arène nationale Dandi Fall ne ma daañu bëree daañu xeex Tidiane Faye ne ma su bëggee sax ñu bëre ba naaw ci kaw air bi Dandi Fall di jógee Grand Yoff Zarko andi ko Tidiane di jógee Lansar Siteu ànd ak tarkindaa yi la ilaha illallah